dal leen ak jàmm ci AGT News chaîne bi leen di jox xibaar yi wér te dara bañ leen a raw. AGT News. Coupe d'Afrique ba sax buñ ko renvoyé woon de quelques mois du tere équipe yi nga xam ne ñoo kalifiye woon ba noppi ñoo cay dal di joué yi loolee du samay kaddu kadduy Amadou Ba Pastef mandataire bu Bassirou Diomaye Diakhar fay moo wax lu ni mel mu ne nag amul dialogue bu fekkoon sax. président Macky Sall dafa xëy daal di démissionné noppi itam président assemblée nationale ñëw daal juridiquement maanaam ba ñu tënkoo ci yoon amul lenn lu mën a daal di modifier maanaam soppi liste candidat yi nga xam ni waa conseil constitutionnel la daal di nañ koy fësal ba noppi te ñu doon ñi war a jongante ci élection présidentielle yu atum 2024 yi lii maanaam moom Amadou Ba comparaison la def ci ñi nga xam ni qualifié nañ ba noppi quel que soit compétition bi bés bañ koy jouer dañ koy renvoyer am déet du tee ña qualifié woon ñoo koy amal ñoo koy joué yi ñooy jogante yi ci ñooñi la ñuy tànn kii doon le vainqueur nara yëkkati coupe bi coupe bi nag askan wi koy joxe askanu Sénégal ñooy fal seen juróomeelu président Amadou Ba daal di ciy dolli ne ngir loolu mën am nag maanaam équipe ya nga xam ni qualifié nañ ba noppi maanaam candidat yi ñu am pour jogante yi ñu jëlee leen fi ñoom ñëpp changé leen soppi leen len nay tax mbir mi am muy annulation bu élection bi complètement maanaam ñu fexe ba daal di tëggaat lépp maanaam ñu reprendre processus électoral bi à zéro moom Amadou Ba mu ne loolu yi amul yi wala loi constitutionnelle bu ko mën a daal di def Amadou Ba daal mandataire bu Bassirou Diomaye Faye la mu bëgg a wax mooy bëgg bëri bañ bëri ak lu mënti xew Bassirou Diomaye fay nekk na candidat ba noppi élection présidentielle dañ koy amal la mënti xew nu mu mënti demee askan wii dina tànn kii wutu président Macky Sall ca pali aw li bëri na nag waaye li am ba des mooy askan wii ñu ngi sàkku seen calendrier électoral ñu dal di koy respecté réewum Sénégal dañ koo mës a nawloo te organiser élection yu jaar yoona yu mucc ayib te passation de pouvoir saa su nekk ci jàmm ak salaam lañ koy amali démocratiquement askan wi one seen bopp joxoñ ki nga xam ni moom la ñu wóolu ngir dénk ko seen ab nguur ana lan rek moo waral ñu élection yi li daal di bëri coow dina tontu la am daf ci am candidat boo xam ni mën na koo gagné au premier tour te nag arrangé wul ñi nga xam ni ñoo nekk parti au pouvoir suñu gis gës la suñu ngëm-ngëm la te loolu askan wi ñu ci ëpp noonu la ñuy xalaatee daanaka ah jàpp nañu ne Bassirou Diomaye Faye bés bu demee ci élection présidentielle yi lii balaa di jot carte gi dal di leer loolee mooy li am buñ ci bëggee firnde ñu gaaw gaaw organiser yooyu la jongante te nak na lépp leer bu mu am benn jàppal tànk AGT News aucun dialogue la démission de Macky Sall ou la suppléance du président de l'Assemblée nationale ne peuvent juridiquement modifier la liste des candidats déjà retenus par le Conseil constitutionnel. Si on reporte la Coupe d'Afrique ou la Ligue des champions même de plusieurs mois à l'arrivée, seules les équipes déjà qualifiées y participeront. Il faut une annulation complète de l'élection présidentielle pour reprendre le processus électoral entièrement, et cela, aucun décret ou loi constitutionnelle nëppal affaire des propos de Amadou Ba mandataire du candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour le compte de l'élection présidentielle de 2024 la population sénégalaise réclame qu'une seule chose c'est que ces élections soient organisées le plus rapidement possible pour qu'ils puissent choisir démocratiquement leur cinquième président en vue de remplacer le président Macky Sall au palais et ainsi poser les premiers pas vers le développement AGT News